Tchosan TV, la télévision qui a l'habitude de camper les décors merveilleusement bien partout au Sénégal. Tchosan TV, la chaîne qui vous parle de vous-même par le truchement de la passée de vos ancêtres. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir tous les... ok maman. Mhm. kon lu ñu dal a actualité rek tey. Mhm. li xew ci dëkk bi. xam mhm. na Ndakaaru macha allah. yaakaar naa gis nañ ne fan yii gis nañ ko yëpp. yaakaar naa biñ mu doon sax yaakaar naa une semaine. mu xale boobu nga xam moom la ko jëy naa ko muy euh, bokkoon seen petit gàlle. amoon euh, problème ak ki nga xam ne moo jóg dem ci yoon wàcc dem ci yoon ba ñu teg jóg ISEC ay daal. ñu jàpp ne ñu jàpp ne. Diop Isaac moo tooñ wala xale bi la. Mhm. yaakaar naa ñu jox euh, toor ñu jox toor Diop Isaac. te ñooy ak bu ay fan gis ni mu defaat encore ki nga xam ne mooy Brune. wallaay di euh, producteur son macha allah ñu gis tëgg li ñu ko tëgg kon dafa mel ni en tant que yaay lañ lay wax tey en tant que porteur de voix en tant que koo xam ne da ngay jur toog la rawoon na jigéen ji lan nga ciy wax. tiit loolu ci moom am njàqare tiit naa loolu ci Sénégal. parce que xale Sénégal ñi gën a nekk xale ñoo ëpp fit fii ñoom lii xew ci seen jamono ñun de suñu jamono dañ koo ragaloon tiit naa ci lool ndax xale bu tuuti amee fiti nii di am ay ay ay kii yu muy defanteeg ay nit maanaam góor yi muy seqal addina di leen di leen chantage di leen di leen di leen menacé ah ba ñu dem ba def def ko garde à di jël seen alal di di leen arnaqué mais gisoo ne ci ci yi la muy jël xaalis di ko yóbbal seen yaay ak affaire yi xale bu ndaw amagul sax 18 ans. waaw ci lay yem mais est ce que yow bu doon sa doom tey doo xool dara. bien sûr bien dafa doy waar mooy li ma la parents yi am nañ ci part de responsabilité waaw nga doom da ciy da ciy da nga ciy wasu sa àq. wasu ci àq ba at lépp xam ne wasu ko ci àq bu demee ne ba dëgër bu dëgër bu dëgër bopp ba ñu xam na kii dafa të nga xam na yow mi yow mii waajuram kat defoon ko ci lii loo mën mais bàyyi seen doom yi ñu ñi tasaare dëkk bi te ay xale yu ndaw ay 19 ans ay 18 ans am fit woo xam ne koo xam ne sax am na cinquante ans ñemewu ko vraiment dama ne doy na waar te Sénégal léegi li fi ah ah war nañ cee wax de war nañ cee wax il est temps ñu wax ci parce que ay xale yu ndaw am fit ñeme mel ni ku nekk ci ay da ngay mel ni dañoo mel ni ku nekk di jouer ay film dañoo mel ni ku jouer film. mais maman waar torop doy na waar torop mais itam ji xale yi daf mel ni xale jigéen parce que tey dañu gis xale jigéen boo xam ne mu nga bàyyi ndeyam ca banlieue loolu ma jaaxal bàyyi am nañ ci ak dërës loolu ñëw fii bu ko dund bi ba léegi mu loué benn chambre bu trente cinq mille wala uhuh. quarante mille mais uhuh. uhuh. mooy far benn idéal nga gis benn idéal nga gis doo mën a am toppatoowul yaayam toppatoowul ndeyam soo bëggee cinq cent mu jox la soo bëggee un million mu jox la di fanaan yow guddeeg bëccëg doy na waar loolu lan ngay wax ci jigéen yooyu mooy li dañ maa tiital instant bi dama damaa tiit ndax yaay laa jur ay doom comme seen yaay juree ay doom damaa tiit ndax lii jëm dafa damay ne damay ne akuru jamaan la ñu nekk léegi loolu daawul gis moom ngay gis lu daawul dégg yaa ngi koy dégg ci lu baree bari na ci loo xam ne baaxul vraiment en vrai dire xale yi war nañu delloo si waat seen xel ñu xam ne àddina àddina yàggul te àddina day jeex te dee day ñëw nañu dell seen xel du àddina moom moom mooy kër te àddina du kër dañoo def addina kër te àddina du kër xam nga xale bu tuuti am 19 ans 18 ans ah di tasaare dëkk bi nii di def ay doo xam ne nit ko am su juróom fukki at sa sañu ko xalaatu ko ñu di ko def vraiment man loolu rafetlu ma ko te xale yi war nañ dellu si waat seen xel ne xam ne xale day dee te mag day dee ni mag di deewee noonu la xale ji deewee ay seeni parents tamit am nañ ci pas de responsabilité comme ni ma koy waxee nañu suivre xale yi nañu bàyyi xel seeni doom nañu bàyyi bu leen seen doom indi lay ñaar téeméer wala junni rek ñu ne yàllaa jërëjëf nañu arrêté loolu parce que loolu day indi tey anam mu ngi ne def ko garde à vue mu ngi nekk garde à vue nga xam fu wax ji jëm léegi bu ñu ko tegoon adnaan du yàqu fekk na yow sa bëgg ak sa foqale moo la ko indil na parents yi am seen responsabilité téye seen i njaboot yar seen i njaboot ba at ñëpp yëg ko bu ñu demee ba tël ba tëlee ñu bale nag àddina. mais mais mais waxuma parents yi mais appartement yi. appartement meublé. ah ah. ah mais appartement meublé c'est la même ci ci ci la bokk ndax ñoom it ay waajur lañu ay mag a koy moom. mais nañu xoolaat ni ñu luyee nañu xoolaat ni ñuy doxalante ak ñi nga xam ne ñoom dañuy jox appartement yi parce que tamit appartement yi mi ngi toog réew mi de. mais naa ko nga xam ne mooy ko góor gi am na droit doxaan ko. moom mooy brûler. Uh-huh. mais pour man brûler mu toll ñëpp di ko dégg. Uh-huh. muy dugal muy def ay son et yooyu ñëpp di naan uh-huh. waaye xam nga xam nga jigéen jigéen jigéen xelam moo moo rëy jigéen xel mee rëy. ñëwoon te xale la jigéenu xelam bi ko yàlla jox. ah gëmoo loolu. <laughs> waa ci ay ak ci ay góoram rek. ak ci ay góoram ni ngeen dañoo yàlla dafa bind te yemale wut sëñ bi. te yow mën nga am dëgërlaay bi ngay am ah moom xëy na am na ñoo xam ne amuñu ko. Mm-hmm. waaw am na ñoo xam ne amuñu ko moo tax nit ñi yàlla dafa bind te yemale ma ne biir grand frère am boobu tam. Mhm. di ko jàppale ci kii. mooy li ma lay wax waaw. parce mhm. moom laa la wax parce que mooy li parents yi am nañ ci am nañ ci parce que ki mu nekk magam bu la mais am na nu mu doon demee sax magam bu bu doon di nit ku baax la mbala mu am fulla wala mu am fayda xale bu yegsi du yegsi kon lépp moom la mun nañ ne yëpp moom la ndax yaayam ak ndeyam fi waaye moom moom moom moo fi reprendre moom waaw mu noonu mm-hmm. moom fii ndeyam di fi baayam kon waroon a teg rakam ci yoon ci condition yu mm-hmm. du dëgg kon ma wane àddina yàqu na nekk mm-hmm. ak sa àddina na ah, mais loolu dafa doy waar sëñ bi loolu ku ne ku ne ku ne doyul waar daa fekk new dalu ci sa kaw mhm. naa man mu ngi noonu rek moo <laughs> ba léegi ñu demaat ci actualité bu mhm. xew démb ci diggante dañu gis euh, suñu benn confrère mhm. muy euh, Tartandia gën ci téléviseurs yu góor jigéen ñu koy wax mhm. ñu ne mhm. ñu dégg mu def benn sorti démb mhm. leeral nee na dafa am koo xam ne moo nekk ci ginnaaw benn jeune milliardaire la sénégalais la bu nekk États-Unis mooy xeex Wally Seck pour mbirum góor jigéen ñi ba léegi ba am na benn photo temps yi bu buñ monté bu mu def ñu monté euh, monté ko Belgique Wally Seck ak benn tubaab bu góor ñu nekk di def naka surul noonu ba yaakaar naa at bi bu lay lëmb état démb léegi xaw ma dégg nga xaw ma dégg ko nee na aussi tam kooku nekk États-Unis Sénégalais la bu am xaalis nekk milliardaire. Mhm. États-Unis mu nekk ginnaaw euh, ñooñu noonu pour xeexwaal fekk pour gën ko daal di euh, septembre bi. dégg naa ko dégg naa ko léegi mooy dafa am beneen jigéen koo xam ne dafa ñuul gàtt mu ngi fii biir Sénégal kooku mooy représenté mu kooku moo représenté ki nekk États-Unis mhm. pour mu jàppale ko ci xeex. Mhm. fii ci euh, Sénégal. pour mu jàppale ko ci xeex bi ñuy def wàllu fekk. en tant que yow en tant que Sénégalais loolu ngay xam en tant que ustam koo xam ne day seet di gis. loolu lan nga ci gis. may complot mën na la complot la rek bu ñu ko bëgg a bëgg a yàqal xale bi mais barke sëñ ma kenn du ko mën a dara waaw man xam nga man mën a yàqal di wax risque ma de sëñ juruma ko mais nag yaay laa kon mu ngi mel ne jur naa ko mais yaay ko wax dëgg waaw mais dëgg la mais gisaguma lu mu fi defaat complot nag ak wax yàq yàq nit dafa yàgg ci réew du dëgg waaye bu ñu xamoon yàq nit ak susal nit la ci yàlla wax kon danañ ko maytu yéene nag la nag borom a ciy fanaan amaana ñu ngi koy kàmbal amaana ñu ngi koy kàmbal waaye lañ koy kàmbal nañu maytu ñoom mu dugg ca dañ koy kàmbal dañ koy kàmbal loolu noonu du dëgg du dëgg kay du dëgg te te te buñ demee ba ca biir bu demee ba ca biir di nga xam ne du dëgg saa su ne ñu wax ci Wally Seck ma am lu ma wax ci moom te bu ñu demee ba ci biir sama sama wax day dakk dëgg nañu bàyyi jàmbur dañoo war a bàyyi jàmbur Wally Seck doom la dañ ko jur waaye jóge ca États-Unis ñëw rek ne ko tey nga doon góor jigéen par force ah mais dafa lu ma de doom la dañ koo jur waaye Wally sekk waxul ci ñoom lu bon ñoom ñoo jóg di jël ay wax ju bon di ko teg ci Wally Seck nañu bàyyi jàmbur dema ne sëñ bi yàgg na nit yàgg naa yàq nit dama ne la nit yàgg naa yàq nit fekk jegewul laaluwul taqewul nii su sol nañ ko ba dugg ko koso fekk laaluwul taqewul maa la wax lii man nañu bàyyi jàmbur doom la ma ne mi ngi bëgg a yàgg dañoo war a bàyyi jàmbur te ci seen complot boobu ci seen kaw lay këppwaat du man maa la ko wax incha allahu rabbi seen kaw lay këppwaat loolu laa gis te loolu lay am seen kaw lay këppwaat seen kaw lay këppwaat te dina métti loolu ci ñoom ah. du yaa ngi fi maa ngi fi nañ ci bàyyi xel nañ ko topp kon daal gi ngeen dara du dëgg lépp dara du dëgg ay nar la ak ay complot nañu bàyyi jàmbur mi ngi liggéey liggéey am jomam nañu bàyyi jàmbur mu liggéey liggéeyam. tuddee ma ko ma ne tuddee ma ko je suis avec toi léegi tuddee ma ko mais nag dëgg na ko moom dañuy wax dëgg ji. lu dama ne la déggoo ma de Wally Seck daal doom la dañ koo jur nañu bàyyi jàmbur. sëriñ daw Sénégal lu bon xale jigéen yeeg affaire rek moo fi ne fu mu ne nii. dëkk bi jaxasoo fu ne looy wax loolu lu bon nga indi. lu waaw lu bon rek ngay indi moom lañ parce que looloo tax ci dëkk bee toog léegi instant bi mais lan moo waral waaw mais seytaane dara xale yi ci boppam ñoo bon. xale yi ñoo bon di def lu bon di seetuñu seetuñu yàlla xooluñu yeneen bi julli wuñu wooruñu toppuñu yàlla toppuñu sariya nit nag boo toppalee yàlla toppaloo ñi nga xam ne mag ñu baax ñi la ci wallaay ci ci ci seytaane seytaane fa mu jaar ak fa ngay jaar te loolu rek moo moo nekk seen xel lu bon rek la ñuy def xam nga ne di jouer série di def lu bon mel ni kuy jouer porno te ngay doomi julit nekk doomi Sénégal nga xam ne fii maam Bamba ngi fi tëdd maam Alaaji Maalik tëdd fi Buur Kunta Njaasaan tëdd fi ay mag ñu baax tëdd fi ñuy def lu bon fii ne ñoom moomul culture boobu kenn xamewuñ ci loolu ko si dis la vérité Sénégal la ñu xam ci moom ñoom mooy eh, ci wàllu dëkkub diine la dëkkub lislaam la kon na xale doxal loolu ku ko ci doxalu tamit sa kaw lay këpp waar rek bul sonn ci sa kaw lay këpp waar rek. ko bëgg respecté mmh. la macha ay ñaari yoon laaj dañ ko laal est dañ ko laal aussi tam côté diine ma de dina waxe dañ ko dañ ko laal dañ ko mystique lu leer laa lay wax gis nga fii Sénégal dañ ko mystique maa la wax lii dañ ko mistik moom ay randaw moo tax muy barki Sëriñ Bamba muy wax rek muy wax dana wax ba xar génn ci gémmiñam te ko xam dañu ko mystique est-ce que du wax ba ah xaw ma dina xaram géej gi dem géej de waaye en tout cas dana wax ba xar génn ci gémminam te du ko tey ndax Iran lii muy wax léegi daawu ko woon wax ci jàngale laa nekk di jàngal doomi aadama di wax wax gu dal wax gu sell mais dafa bëri ah, bari na lu muy dugg ci génn ci réseaux sociaux yi moom lu muy génn sax temps yi man sama su ma ko génn tout temps mi ngi génn di wax ay cocog rek loolu dañ ko mare dañ ko dañ ko mystique dafa am dafa am fu mu jaar am lu mu wax mu metti nit ñi dem mystique ko Sénégal moo mel noonu sëñ bi. dama ne dañ ko mystique. te de de ko déglu wax day waxat beneen dégât lay def. dina waxat leneen lu ko gën a rëy. man maa la wax ni daf dañ ko mystique. mu fajuwul dana am problème lu leer laa lay wax. ma dina wax ba xar génn ci gémminam laa la wax. xaaru lëmm dina génn ci gémminam dina wax lu rëy. ay tojaay nga rek lay wax dañ ko mystique. mystique bi la ci wax ci wax ci wax lañ ko ko dañ ko ko yóbbu maanaam ñu ñu kii ko ci wax luñ ko dénkee micro rek day wax toj toj ça rendre da ci li muy wax xam nga kilifa naan jongu naa jonguwaat naa loolu secret la woon mënoon na ko téye xam nga loolu mënoon na ko téye lan moo tax di ko génne mënoon naa ñàkk ndax ba muy ba muy xarafal ñu yëguñu ko mu naan xarafal naan xaraf delluwaat xarafal te yori ay doom yor ay da doon kilifa vraiment loolu war yoon nañu xam ne li li normal te mosu ko def dañ koo mystique man laa la maa la wax nii man faal dañu koo liggéey Iran nekkatul li muy wax waxu du wax boo xam ne nekk na ay nit ko ko def nañu bàyyi nag def nit lu bon. barke yonent bi. ñaan la papa. waaw naa nangam wala yéeme daal. dafa yéeme mooy li ma la wax nag dañ ko mystique. mystique lañ ko def euh, waaw waa Tiwaawan duñ def lu bon. mais dafa am ci ñoo xam ne dafa maa ngi maa ngi ñëw. ci waa Tiwaawan la amal wax ci dafa dafa wax jox ju rëy mais ñooñu sax lijjanti wuñu wax jooju mais dafa am ñoo xam ne bu ñu déggee dara rek dañ di daal di bu ñu fekkee ne dañoo am xam-xam saay-saay rek dañ la koy dañ lay saay-saayee dañ ko saay-saayee dañ ko saay mais lii mu def ni daaw ko woon def mm-hmm. daaw ko woon def ko dis la vérité am na amay kàddu yoo xam ne mag mag mag kilifa du ko wax du ko wax ci xam ne réseaux sociaux ba xam day dem te moom da koy wax ba pare la xam naa ne boo may wax ngeen koy yóbbu moom xam na ko te pourtant mu ngi koy wax dañ ko mystique yëpp mystique la mystique la mhm. moment ñu mhm. dem sans la dafa ànd ak jamono réew mi yëngu na ñu naan Sonko Sonko tey Sonko mu ngi ne mu ngi ne xeram ni tekk kenn yaa yaa Sonko benn yoon mu wax. Hmm, kenn moo dégg Sonko rek. daa mel ni buñ sotti merci mu ngi ne tekk waxu kilifa moo ko tax a mu mel ni mu mel. du ragal de kilifaa wax ak moom te kay wax ak moom mu ne du sànni ay waxam mu ngi ne tekk tekkaaram te ku ne ku ne tekk nag ndox tekk woon la yoon. kilifa wax ak moom am na kilifa. te am na ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaawam te wax na ñoom moom te dégg na te dégg na ñoom moom dégg na li nga xam ne moom la ñoom la ñu wax ak moom. Mm-hmm. waaw kenn déggul Sonko ci ba léegi mu ngi ne tekk mm-hmm. waaw nit ñi nag ñoo wër di wax nit ñi nag moo xam nga Sénégal moom waxukaay la. Mm-hmm. waaw ñoom wutuñu alal wutuñu dara wax la ñuy wax la ñuy wut. mais Sonko moom ma nga toog jàpp ñàmburam te incha allahu rabbi après ngeen di comprendre ma ne ko après ngeen di comprendre. mais Macky Sall ak troisième mandat moom la tàmbalee. du du du toog troisième mandat mu koy xëccoo nag lu mu ci mën dina ko def. Uh-huh. mais du toog ko troisième mandat. man Fall maa ko wax. nañ dem ba ci cappaandaw ngeen ngeen aw Fall waxoon na ko incha allahu rabbi. Ah, loolu wax na la du toog troisième mandat laa la wax. te uh-huh. waxatu nañ. du ci du ci toogaat. Uh-huh. xëccoo bu ne nag mu koy def dañu toogaat de ci kàttanu suñu borom. incha allah. waaw maman ba léegi rek xam naa bon ñu dem tuuti ci côté làmb yi. Mhm. gis nañ ne làmb yi awoon bëri. Mhm. dañ koy yaakaar naa amoon ni Bombardier yi ak ki mhm. ak ki mooy Modou euh, yaa ngi yëngal nag yaa ngi yëngal ak maa ngi yëngal kay. gis naa yaa ngi yëngal kay mais nan nga gis daal instant ci euh, làmb bi. sedd na. instant dafa seddaat dafa seddaat. lan en tout cas dina jógaat nag. lamb yi dina jógaat te dina neexaat. Mhm. te gis naa ci ay lamb yoo xam ne dinañ ko tëgg te ay lamb lay doon te lamb yu neex lay doon. Mhm. dina am bës dina am dina am wax ju ba dina bari lool waaye it mu ni dina ci gën a génn seen dina gën a génn seen bës dina gën a génn incha allah ku ci mel ne Balla Gaye dina ci génn ku ci mel ne Modou Lo mi ngay wax dina génn ci wàllu bës bi moom it dina génn te dina ci am doole macha allah waaw ñoom it Siteu tamit macha allah moom itam dina génn ndax mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci digg dooleem te taay mi ngi defaru waaw am mi ngi toll na état daal te dina jëriñ dina defar te taay mi ngi defaru baax mi ngi defaru baax mhm. mi ma day day day day am dara day am dara Siteu day am dara. kon mhm. mhm. mhm. gis ma gis nee naa leen temps yi bëri na. dama na leen euh, nañu xoolaat suñu suñu bopp. man leen nawet la ñu nekk damay jóg nañu. wax naa ko ci sama benn interview. xale yi dee bari nañu lool te xale yi gën a rafet ñooy dee surtout xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci tiktok bi di wane seen bopp waxoon naa ko xale yi ci gën a jekk ñoo ciy faatu faatu yi day waar la ñuy faatu. Ah, xale yi day waar xale jigéen ñi mais xale jigéen ñi laa wax. nañu moytu TikTok bi. xam nga TikTok beeg si ak euh, beneen bi na mu tudd. Instagram ak yooyu ak Twitter lu ñu koy waxee waaw yooyu nañ ko moytu bu baax a baax te ñu sang seen yaram tey takkute naan tey muslaay am ay muslaay c'est très important nañu am ay muslaay di takku di sangu di naan tey seet seen mbir mais boo takkoo naanoo sanguwoo bëgg na fàng ci yi TikTok bi ni fàng ci ci ci ci institut yi cat dugg la ma ne ku exposé sa bopp yaa yaaray sa bopp nañu moytu bu baax na dëmbay jóg nañ jinne yu bon yi jóg nañu da nga gis xale bu tuuti ñu la dee na léegi doo xam li ko rey lan la wala nga gis ñaari xale yoo xam ne ñuy kaf ba yàgg ñu rayante seen biir seen biir commencé jamante ay paaka rayante seen biir ci seen biir kon nag ku ci nekk war nañu xoolaat suñu bopp tey fara di sangutu tey defaru jinni bon yi nga xam ne sa formation yi ñoo leen yee comme ni ma koy waxee saa su ne euh, formation yi yee nañu xale yi yee nañu jinni yu bon yi jinni yu bon yi ñu ngi dugg xale yi te xale yi gën a rafet nag jinni bëgg lu bon ah jinne lu baax rek la bëgg waa lu rafet la bëgg day dugg xale yi dugg si ñoom yàq leen def loo leen lu bon noonu la jinne di def kon na ku ci sanguwul fekkul ngay jaamu yàlla allahuma salli dox sa digg sa diggante ak sa borom mm-hmm. foo toll incha allahu rabbi soo ko def la jinne gi bon dina la dugg te mu la gën ju jinne gi bon duggee def loolu musiba nga toog di rëccu fee fekk moom rocceeku ne génn dem te da lay def loolu ba pare génn rocceeku dem waaw kon nag nañ góorgóorlu te dem ba yaa ngi ci biir dëkk bi di lekk xale yi nànk-nànk mm-hmm. lu leer laa lay wax hmm? nañu wàññi tiktok bi mu ci wàññiwul tiktok bi na nga sangu nga takk nga naan defuloo ko yaa ngi expliqué sa bopp yaa sa bopp torop tiktok bi dañ ko wàññi. dañ ko wàññi buñ ko wàññiwul waaru. Mm-hmm. buñ ko wàññiwul waaru man seetkat laa. Mm-hmm. su ma neexoon di def tiktok. comme samay moromu seetkat. Mm-hmm. musuma ko def ci kër addina bu ñu waxee man a tiktok man bugguma ko du ma ko def. waaw ñoom koy def nag mais nañ koy def très attention nañu defar seen yaram nañu sangu nañu takku nañu naan nañu aar seen bopp defuñu ko dugg ci tiktok bi ak yaramu neen maanaam def yow solo la neex dugg di exposé sangoo takkoo naano eh. TikTok bi ñëpp koy xool de ku set da koy xool ku setul da koy xool jinne yi dañ koy xool de ndax ñu ni ngay toppee sama moromu nit noonu la jinne yi dañuy toppee noonu la ñuy xoolee ndax yàlla dafa bind diggante nit ak ak ak ak ak ak ak ay jinne dañ dañ ñuy gis te ñoom du na sa kër te xamoo këram ñaajaan jinne waaw xam sa kër te doo xam ji xam këram comme nag nañu def très attention ci ak ak li nga xam ne mooy Instagram ñu wàññi ko bu baax dafa am importance wala bokk ñuy defar seen yaram. Thiossane TV, la télévision qui a l'habitude de camper les décors merveilleusement bien partout au Sénégal. Thiossane TV, la chaîne qui vous parle de vous-même par le truchement de la passé de vos ancêtres. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir